bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk ñi déglu assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillaah walhamdulillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar allahumma innaa nasaluka xayra maa fi haadal yawm wa xayra maa ba'd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 day defal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara tabarakallahu ni ñu ko waxee woon bi nu jeexalee ci aj Màkka ak tabaski dañoo dugg ci genn jaamu yàlla gu tudd jaamu yàlla ci alal ibaada maaliya bu fekkee nu lañ ko waxe jaamu yàlla gu jëm lu ci alal bu at miy jeex ci nga daan natt li nga am génne ko azaka waaye azaka wenn xeet la rekk ci biir xeeti jaamu yàlla yi waaye du moom dong mooy jaamu yàlla alal ndax am na geneen jaamu yàlla ci alal gu tudd miraas googu nag négligé nañ ko lool ci pénc bi lool lañ ko négligé ci pénc mi jigéen joo sédd genn wàllu cëri càmmiñam mu fasus kumbaam wuti fa ñuy àttee ne mukk du am cinq mille sama càmmiñ lii am dix mille loolu ak wedd yàlla lay doon kon su boobaa ndax yàlla moo ne na ko góor ki am dix mille ku jigéen ki am cinq mille waaw loolu xeetu jaam yàlla la tey dañu ñëw ci ñetteelu tomb ci wàllu jaamu yàlla ci alal mu ngi tudd alwasiya alwasiya moo tudd ndénkaan waaw ndénkaan lislaam mbokk yi diine ji nga xam ne moo tudd lislaam te annabiyul mustafaa sallallahu alayhi wa sallam ne ca bopp ba àndoon càkki saaba ay na ñëw seen ginnaaw asalafu saalih ñëw seen ginnaaw ba suñ jonni tey jii lislaam euh, foo ko fekk dafay dund ànd ak nit ñi nekk benn élément bu am solo ci seen dund jamono ji muy wax ne rënk alal baaxut la indi tomb bu am solo bi tudd alwasiya alwasiya mooy kenn ku ne li nga am ci sa alal lislaam ne yaa moom lépp waaye am na benn cër buñ la may ci sa alal boo xam ne ku la neex nga may ko ko waaw ku la neex nga may ko ko mën nga caa dimbale foqaraa yi mën nga caa participer ci projet yi lépp dellu ci njëriñul pénc bi tuyaaba di ñëw ci yow hmm? waaw waaw alwasiya alquran bi mu ñëwee ci alwasiya daf ko def mu nekk ci martaba bu kawe ci wàllu tashriya mu lënkale ko ak lënkaay yu am solo ci wax ne jooxe ko ci farata yi la bokk lu mu ko lënkaleel addaynu mi tudd bor waaw moo tax bu ñu tollee ci bëgg a miiraas sunu borom tudd ñaar yépp waaw bu ñu tollee ci bëgg a miiraas waaw tomb boobu nga xam ne barki démb wala boog alxames yi ñu génn ci lañu nekkoon muy tomb miraas sunu borom lënkale ko wasiya dama ci alxuraan da fekk mu naan min baadi wasiyatin tuusuune biha aw dayn bu dee jëkkër ya min baadi wasiyatin yuusiine biha aw dayn bu dee jabar ya yàlla nee na bala ñoo miiraas nañ xool jëkkër ndax amut wasiya bu mu defoon ndax amutoo yi bor ñu génne ñaar yooyu dóor a miiraas allahu bari waa jëkkër yoo xam ne fi ne nekk nañu àdduna ba génn àdduna amuñu wasiya amuñu wasiya bor nag moom daanaka mën nga ne koo seen bu dox ci suñ penc mii lam ca gàddu bu la ko waxoon nga gàddu wet <laughs> lam ca gàddu bu la ko waxoon nga gàddu wet yàlla xam na ko waaw ne cal rek te te sénégalais du tudd ay borom ndax ñoom jàpp nañ ne loolu ci sutura la bokk waaw wala ci suñ aada la bokk ku ne dangaan mokk ak say bor rek yàlla xam na ne nogay mee de fi ne la muy nekk nekk fële mu nekk ci mbar bu faatu woon bu ma gàddooy borom lonku waaw waaw tabarkal la yàlla tere waaye bu faatoon fi ne su ma gàddooy borom lonku waaw moom nag attunul samay borom waaye daal min di wasiyatin tuusuuna biha aw dayn muy jëkkër ya wasiya naa ci ñëw mu ngi noonu yàlla jiital ko ci wàllu miraas ak bor waxaat ne min di wasiyatin tu yuusiina biha aw dayn bu dee jabar ya jabarit léeg-léeg nit nekk fi ba génn àdduna di jigéen moom daal la doon ab liggéeyam mooy takk or sol ci jasneer yi cuub yi jóge Mali rek waaw orub orub orub eh, Madina oru Jidda rek waaw ba xëy génn àdduna waaw bàyyi fi ay yére yoo xam ne bu jaay yére yi mu joxe seize millions te nag ndeysaan deful benn wasiya deful benn wasiya mu mbokk yi luy wasiya wasiya mooy nit ki xam ne dund gi dafa gàtt mu jël ci alalam un tiers boobu mu tibb ca par exemple mu ne daara sàngam dégg naa manqué nañ nàngam ma bëgg su ma fi yàlla jëlee ngeen joxal leen ma ko sama kaar bii wala sama bis bi waaw wala sama takkaay bi ma ko seetee trent millions la dix yi joxal leen ma ko diw allahu akbar waaw loolu may wasiya loolu may wasiya xeetu testament la waaye du testament boo xam ne bii bu bu bu mat la waaw du testament boo xam ne bu mat la mbokk yi li tax lislaam tëral ko tëral liñ tuddee wàqf mooy ki ko def tuyaabaam day continuer bu fekkee luy kontine la nga dégg ñu ne dëkk sàngam amuñu ndox waaw dëkk sàngam amuñu ndox walla dëkk sàngam jigéen ñaa ngay rootaan ca teen ba la ñuy fanaan nga ne foofu lu fi lu ciy gasub teen ñu laa ku am cinq cent mille de gas fab teen nga yëkkati cinq cent mille joxe ñu gasal la teen ca dëkk ba li feek teen baa ngay dox ku ca góoxub góox nga am tuyaaba ku ca rootub siwa nga am tuyaaba ku ca root paan nga am tuyaaba te dunduk nit dafa gàtt li ngay julli baax na de li ngay woor baax na waaye am loo xam ne boo demee bàyyi ko fi dara gënu ko danaay wax ñun ñu dëkkee dakaar ñun ñu dëkk wala boog ñun ñu nekk Dakar sax laa bëgg a wax <laughs> ndax nun dëkkunu fi Abdoulaye Makhtar Diop nu dalal <laughs> yàlla ko yàlla yokk wér nun ñi nekk Dakar ñuy dem léeg-léeg fële ca Sandaga jàkk jooju tudd zawiya maam Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala ma ne barab booba su ku ko defoon centre commercial ci jamonoy 1922 ak tey nanu calculer su fekkoon rek weer wu jot mu génneel la un million calculer 1922 ak léegi ñaate milliards ngay am waaye milliards yooyu yu àdduna yi limam Cheikh Al Hadj Malick xeeb daal di naw milliards millions yi ci sunu borom subhanahu wa taala ndax maa fa du jëm moo tax mbokk yi imaginer leen boobaak léegi ñaata nit ñoo fa julli ñaar rakk te ku sëlmal ca ñaar ràkk suñu borom am na lum ca dencal mam Cheikh El Hadj ma sampoon jàkk joojee noonu nit lañuy wax nag ci mboolam jàkk yi moo tax suñ kër yi mag ñii koo ci dem lam defal yàlla ci pénc ma moo ëpp foofu lam defal boppam waaw kere ba ñu demee kawlax ñu dugg ci euh, jumaat ji wër ba génn ñook euh, imaam ñook Assane Cissé Seck am na ko yàlla yoo kër nu walbati ku dugg néeg Cheikh al Islaam man foofa laa xëm ndax li ma doon natt mooy li kii defal yàlla ak lim defal boppam ñu ne la fii mooy néegam nga ne ah ñu ne la fii mooy néeg yàlla mi fi am lu tax ñun duñ def loolu léegi lu tax ñun duñ def loolu léegi li ko waral mooy sunu alal yi dafa bokk ci jumtukaay yu ñu seetaanee xeexe wa sharikhum fil amwaali wal awlaadi wa'iduhum waaw sunu borom ba dem sóoru Israayil dafa légaliseel seetaane ay jumtukaay bokk yu mu xeexeek ñun bokk na ca sunu doom yi mhm, ak sunu alal yi wa sharikhum fil amwaali wal awlaadi wa'iduhum wa'iduhum mooy nga di leen dig di leen dig mooy lan saa yira <laughs> bu set seytaan leen saa yira dana baax dana baax ba nga xëy rek jóge fi lu góor ga waxoon ne ma doom mu ne am mu noonu du baax de <laughs> xam nga ñaata laa mu ne ko jële mu ne maa ngi ci soixante-douze ans te baaxagut kon du baax mu ne ëw waaye tubarkal la kon wasiya nan ko def ak jaamu yàlla jaamu yàlla ci sunu alal yi waaw un lislaam moo tax deful wasiya mutlaxan xam nga boo demee ci réewi tuwaab yi da nga gis koo xam ne kii daf naan sama alal ji may naa ko sama xaj bi am na maire bu doon faatu six milliards la bàyyi muus mi mu dëkkaloon la ko may léegi léegi muus mi la may six milliards ñu jëndal ñu jëndal ci muus mi ab oto <coughs> jëndal ko ci ak kaaf ak palaat bi muy lekk di ko ci jëndal ñamu muus waaw fay kiy doxantoo muus mi weer bu jot lañ ko cay fay fay na ministre ci sunu réew kiy doxantoo muus mi waaye mbokk yi loolu du ci am benn jenn tuyaaba mukk ngeen baal ma ci ci ton bi moo tax lislaam bu wasi ñëwee ah daf ko daf ko daf ko organiser waaw daf ko limiter daf ko yoonal muy lan su fekkee dangaa bëgg a def wasiya ki nga xam ne bu ñuy miraas day am wàllam doo ko jox dara maanaam su ma faatoo joxleel ma sama aaw bi nangam ah déedéet ndax boo faatoo bu ñuy séddale aaw day am wala su faatoo joxal leen ma tàntay xale yi nàngam ndax moom amu fi doom ah bu fi amul doom bi bu ñu séddal lay am moo tax gis nga testament yu lislaam wala bokk miraas lislaam daf koo yoonal waaye pinc mi la nga naan damay bañ xale yi tasaaroo damay bañ njaboot gi nàngam loolu say sentiment yi bopp la de defe ko ne yàlla wax rek te génn ci waaw la góor ga wooxoon doom yi ba ñëw mu wax leen loolu ne li ma am lépp laay jox yàlla yéen tam ma booleen loola jox yàlla lu yàlla def ci yéen ngeen xam mbokk yi ma léebal leen ni may faral di leen léebal léeg-léeg dafa am ci réew yi penku yële genn góor gu ragal bàmmeel niñ ragale bàmmeel ñun ñëpp góor ga woo ay doomam jox leen benn wasiya benn ndénkaan ne leen bis bi ma faatoo bu leen ma fanaanal ci sama bàmmeel na ngeen wut jenn waaye ngeen fay ko mu fanaan fa suñu xëyee ngeen yóbbu ma ma continuer léegi nag fay leen ko xaalis bam mu nangu gaa yi di wër bi góor gi faatoo gaa yi di wër wër wër mun ñoo am ku fanaan ci bàmmeel bi seet ba ñu gis Mor Khoudia Mor Khoudia am mbaam la am ak buum ak jaasi te bi ak juróom-ñeenti doom ñu ne Mor Khoudia ñun de sunu papa def nañu woon bu faatoo ñu wut ku ko fanaanal ci bàmmeel bi boo xëyee génn ñu fay la mu ne lu ngeen may fay en tout man nañ laa fay deux cent million mu ne yokk leen yokk leen gars yi ne ko deux cent cinquante mu ne bu ngeen defee trois cent ma fanaan trois cent million mu fanaan ci bàmmeelu góor gi ñu d'accord ñu bindu contrat bi <laughs> daal di jël waa ji gas bàmmeel ba mu baax ñu dugal ko ci biir suuluñu ko nag ñu ub ko ñu daal di ub naka ñu ub ñibbi mun kër ak Nakiir daal di ñëw daal di tàmbaleeg waa ji sa mbaam mi yow foo ko jële sa mbaam mi foo ko jële lan ko jënde foo ko jële waa mbaam mi mbaa ngooñ mi daana mat moom mbaam mi ndax daana lekk pepp sa mbaam mi sa mbaam mi sa mbaam mi mook mbaam mi ba daanaka ma ne bi bi ñu robee waaj yi ci timis ba wi question yi mbaam mi ci la ñu nekk ñu noppi ci question yi mbaam mi ñëw ci jaasi ji noo def ba am jaasi noo def ba am jaasi fan nga jënd jaasi ji mbaa muusoo ca gajj luñ gajj la wut waaw ñoog jaasi ja ñoog jaasi ja ba quatre heures du matin ñu door a ñëw ci buum ji foo jëlee sa buum ji loo ci doon takk bi nga daan taxani ndax eaux et forêt yi daañu la may autorisation ñoog moom ñoog ñoom ba heure bi ndékki jot dañu ñëw ubbi waa ji rek mu départ armeel ya samp xelam di daw xel yoo xam ne ñëpp waaru taxawal taxawal foo jëm taxawal foo jëm kaay jël sa xaaj bi mu ne mukk mukk lu xew mu ne man am mbaam laa am jaasi akuk buum biig suma guddi gi yépp maa ko paase ci jaasi ji mbaam mi buum gi waaw su ma amoon quatrième affaire fan la jëm su ma amoon cinquième affaire fan la jëm laa ilaha illallah gars yi wax wax mu ne jëlu ko tey jëlu ko ëllëg mbokk yi gis nga léeb bii bu nu xëyee nañ ci xëy xalaat ko mbokk yi léeb bii bu nu xëyee nañ ci xëy xalaat ko mbaa leen yor mën nañoo layal lépp waaw mbaa leen yor mën nañoo layal lépp ministre nga député nga gouverneur nga directeur nga ustaas nga ilimaan nga jéeg buy sëy nga mbaa lin yor mën nañoo layal lépp góor gi de am mbaam la am jaasi ak buum waaw paase ci guddeem gépp te kat faatoo gudd dañ ko <laughs> dañ ko dugal ci bàmmeel bi rek moom faatoo gut waaw mbaa ñun liñ yor lépp mën nañ koo layal ah bisa ngi ñëw boo xam ne bii foofu la jëm kon wasiya lislaam aaye nañ ñu ne lu ñu neex rek def ko daf ko encadré waaw ndax euh, thuluthu farwa mooy un li ngay bàyyi maanaam li nga am ci alal boo ko xaajee ñetti xaaj ñaar ña tegal fële ñi lay doon ñoo koy moom waaye benn bi daf ko wasiya ndeysaan alaaji ndongali baax pàbba ci Thiès dañoo ma sa ànd conférence ci jàkka ci rôlu jàkka ñuy waxtaan ba agsi ci tomb bii bu nu tomb bi benn maire bi moomoon terrain bi sës ci jàkk ji daal ñëw micro jël micro ba ndeysaan <laughs> ni ma ndongali ma ne ko ah ni ma gis nga sama terrain bi sës ci jàkk ji mu naa ah, mu ni ma may naa la ko mu néew ma ne waa jàkk ji may may naa leen ko ndongali pàbb daal di xëm waaw moo ñu daan dawal waaye keroog moom dawalul ndeysaan mu daal di xëm loolu maire bi def un tiers sa alal may nañ la ko ci nga ne may naa jàkk ji sama terrain bii taf leen ko ci ma ne bi yàlla boo gaaw a xam li nga def lu laa ko ñaanal keroog yàlla boo gaaw a xam li nga def waaw dégg ngeen ba tey may tudd maire Soxna Diop yaayi Maodo suma bàjjen ba woon ca Ikotaaf Pikine bi mu déggee moom tam ma waxtaanee lii mu def jeexantal ci moom mu dem ci seen dëkk ba sama bàjjan jaay or ba mu amoon ndax da daan jaay mburu or ba mu amoon lépp mu jaay ko def ko ci jàkk ndax Sénégal boo amee 4 million danga am jàkk mu jël oram bépp jaay ko def ko ci jàkk ba muy jënd basang yéen ndeysaan li génn àdduna ay basanga manqué ca jàkk ja mer na Jóob waaw mbokk yi jaamu yàlla ci alal jaamu yàlla ci alal su ko defee ki nga xam ne bu ñu miraase day am cër duñ ko sedd ndax dañuy bañ mu am ñaari cër nga sédd ko ñuy miraas sedd ko mu ëpp lay moromam ëpp naa def yonente ba yàlla yónni woon moo nañu laa wasiyata liwaarisin laa wasiyata liwaarisin waaw koo xam ne bu ñu seddalee dangay jot sa wàll bu ñuy bu la kenn sédd te miraas ñëwagul mu ngoog waaye ma wax ne bu dee sunu luwaay àdduna yii ginnaaw nous sommes laïcs ñoom nit ki dañ naan ko sa alal yaa ko moom mut mutlaxan la neex def ci la neex def ci su ko defee moom tam mu jàpp ne lu ko neex def ci déedéet du def loola neex nga def ci da ngay tënku ci ki yàlla yónni woon pour mu jàngal ñu kooku ngay tënku yàlla yoon ni woon benn bis dafa rëdd aw rëdd daal ne saxaaba yi damaa bëgg ku nekk ci yéen lim lim am te ñëw fekk ma ci biir rëdd bi kenn ku ci nekk na taxaw ci buntu rëdd wi ñu audité ko mu door a ñëw waaw ñu audité ko mu door a ñëw seet <laughs> acca ah, diw taxawal taxaw ma ne man am naa nangam am naa nangam ak nangam ak nangam loolu laa am mu ñu ne ko duggal dugg si mu dugg si a ci diw mu ne man nangam laa am ak nangam ak nangam mu jeex mu dugg si ñu waaw dugg si troisième bi ñëw daal ne xawet na ci ne ci biir doo cëpp ne nii laa toll si <laughs> tét moom daf ne xawet rek ne cëpp ci biir doo ne nii laa toll yonente bi jàngale ko rek jàngale mu rëy xoolal waaj moom daf ne xawet rek cëpp ci biir ne nii laa toll maanaam moom xaftaan bi mu sol ak dàll yi ak kaala geeg mbaxana mi képp la am mu ne nii laa toll yonent bi ne kii moom kuy neex a régler la bu ëllëgee moo tax ginnaaw nag bari nañu bari démb dañuy waxtaan ndeysaan ci alkitaab waa ju baax ndeysaan ñaare saa buñ duggee ci azaka wala miraas rek bis ba du añ waaw bëgguma tudd tëram ay bari ki démb tabarkal la yëkkat yëkkat ni ni nit di jooy di yëkkat bi ñu duggee ci tomb boobu loolu la mooy mu ne ma su ma yëgoon du am yaa la mu wax su ma yëgoon duma am ma ne ko ah kay amal bu baax a baax a baax ndax alma alma almaalu saalih fi rajuli fi yaddi rajuli saalih lu alal bu nekkee ci loxo loxoy ku baax rekk baax ma ne ko kon nag amal waaye bàyyil xel ci jaamu yàlla ci sa alal su boobaa kenn du la mënal dara incha allah mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot yàlla na nu yéex a miiras jërë yëf bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 628 98 98 ñaari yoon 88 nga jiital ñu ànd suñu jotaay bi nga xam ne day am leen di di am mardi jotaay bi 8 lay tàmbali. dix heures lay jeex Alioune Badara Socé nee na antenne la jërë jëf ñu ngi jéggalu soxna yi di jéggalu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër sunu mbokk yi xëy ci xibaar yaa ngi ni taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncalan ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor mi di C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa wa rahmatullahi wa barakaatu.